dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen di jox xibaar yi wér wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT news. jamono ji Ousmane Sonko dafa nekk produit boo xam ne ku koy jaay rek dafay daal di jar. nekk itam benn porte boo xam ne ku fa jaaree di def wàllum politique facilement nit ñi daal di lay déglu nekk itam koo xam ne ku koy xeexle wala ngay jaaree ci moom di wan sénégalais yi que ne yaa ngi koy jàppale dangay ànd ak moom ci xeex bi muy xeex da nga fay jaare daal di am ab tur foofee la kii di sa Seck doon jéem a jaar démb ak kii di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Cheikh Anne nekk ca États-Unis def ci ab témoignage bu ama am solo loolee nag daf di dëgg ndax Idrissa Seck bëgg ko déglu moo tax ay kàddoom daf koo tàmbalee ci daal di raconter dem gi mu dem kër Ousmane Sonko ngir nit ñi daal di jàpp moom mi ngi waxtaan ak Ousmane Sonko seen diggante neex na ratax na kon sa Seck mii tey ñu ko wóolu may ko confiance comme niñ ko joxee Ousmane Sonko totalement loolee mooy stratégie bi nga xam ne moom Idrissa Seck jéem na ko emprunter mu nekk nag loo xam ne dès le départ dafa échec ndax daf koo seq ak ay gone yoo xam ni ñëpp daal di yeewu dañoo nekk ci réew moo xam ni mënatuñoo comprendre benn nit bàyyeekoo fële rek ñëw bëgg a yëkkati yenn kàddu yi di ko jëmale ci population bi fekk na yow am na loo jëflante woon ak ñoom ba ñëpp mere la ci tegee la de côté booleetuñ la sax ci seeni ay waxtaan kookee moo di Idrissa Seck moom mi ne waxtaan naak Ousmane Sonko waxtaan naak le président Macky Sall mu mel nii dafa nekk à cheval entre waaye itam il n'est pas d'accord avec le troisième mandat bi ñu naan président Macky Sall da koo bëgg a def bañ naka nag ba préciser na ne du ko attaqué gum tànk moom waxu si ba li ci gën a doy waar mooy mu ne mi ngi jàppale Ousmane Sonko waaye dafa bëgg mu génn wax bu dee moo def wala deful mu daal di ci indi ay leeral indi ci des preuves bu ko defee moom Idrissa Seck il va défendre sa candidature waaye itam du nangu kenn koo xam ne da koy daal di noot mais Idrissa Seck ndax jaaxalu leen Idrissa Seck ndax yéemu leen tey bu demee taxaw di laaj Ousmane Sonko ci ñaari mbir yi moom lañ fi xam muy Adji Sarr ak mbirum Mame Mbaye Niang ci indi ay boobaa day mel ni moom Idrissa Seck il n'était pas au Sénégal depuis tout ce temps ñëpp dégg fi coowal Adji Sarr ñu génnee fi ay preuve yu leer nañ ñi teg ko sur la table am certificat médical bu docteur Alfouseyni Gaye buy wane ne moom Adji Sarr mile amul góor gu yegg ci kawam Ousmane Sonko brandir ko teg sur la table am rapport interne bu bari nationale boo xam ne Ousmane Sonko itam jël na ko teg ko sur la table ba am ci sax ay conséquences Pape Alé ñaar dem ci kaso am ci ay gendarme yu réer ñu ci bëri naan est-ce que amul rapport ak loolu lool du samay kàddu kàddu yi Ahmed Suzanne Camara la ñu ne déetawaay Adji saar ci boppam am ay conversation yu mu am ak kii di Baye Mbaye MC Niass di ci xamle ne complot la boo xam ni Mamour Diallo moo ko dal di organiser ci digganteem ak Ousmane Sonko ànd ci ak maître Gabi Sow maître Dior Diagne borom message ba ay itam Sidi Ahmed Mbaye bi nga xam ne moo nekkoon sur le terrain ak Adji Sarr du ñàkk ne sax sénégalais yu ci bëri li may fàttali ni lee ennoon na ci seen xel ndax mbirum Adji Sarr moom dañ koo classé dañ cee yegg terminus comme ni ko Ousmane Sonko dal di waxee benn naa ngi noonu deuxième bi di mbirum Mame Mbaye Niang ak affaire Prodac bii nga xam ne moom la ñu koy toppee coow li lépp nekk ci ab diffamation ñu ne déetawaay tey ki nga xam ni moo di procureur de la république ñoo dolli ci injure publique ak faux usage de faux fu mu jógee fu mu bàyyeekoo lan moo waral ñu dolli ko ci ñëpp xam nañ ne mu demee Idrissa Seck gis loolu yëpp dégg itam coowal Prodac gi yàgg na lool am ci sax ay vidéo yoo xam ne jotoon naa génn ñenn ñi taxaw naan Ousmane Sonko lu tax muy diffamer Mame Mbaye Niang nekkoon ci di daal di évoquer boobu lépp mbir kenn ci ñoom di Cheikh Yérim Seck bi muy wax na daa amoon benn altercation bu doxoon ci diggante président Macky Sall ak Mame Mbaye Niang des ministres dak yi nga xam ne moom la ñu waxoon ne moom la ñuy def projet Prodac bi loolee lépp kenn gisul mu daal di antu na mu waree ñu ne deetawaay Birahim sekk ñëw bind ci ab livre bu leer nañ teg sur la table ñu ne tey dañuy toppee Ousmane Sonko mbirum diffamation waa ñun ci ban réew la ñu nekk en plus sa Seck xanaa boobu ba tey dafa nekkoon di nelaw suivre actualité politique au Sénégal lii nag day wane tey dëggal encore une fois kaddu yi nga xam ni Cheikh Andali na koy yëkkati mu ne mbaadu dil bu dox ci diggante Idrissa Seck ak ma Macky Sall génn def cinéma bëgg a bëgg lu Ousmane Sonko di ko jéem a jàppale sénégalais yi waaw Idy waxoon na lii ëllëg ñu xëy. condamné Ousmane Sonko yàqal ko mbirum politique am def la tuuba réew mi nekk dans le kaw ñu ne ah pourtant sa Seck mësoon naa génn daal di ne moom il soutient Ousmane Sonko ci kaw mu dal di wax li nga xam ni moom mooy dëgg par rapport ak mbir yooyu ñu koy daal di jiiñ nous sommes dans un pays boo xam ne démocratie jamono jii dañ ko fiy jooy dañoo nekk ci réew moo xam ni sa ay droit ak say liberté da nga koy perdre ci kaw nga yëkkati benn kàddu dong boo xam ne arrangé wul benn groupuscule personne nañu bàyyi di jéem a nax sénégalais yi ndax ñëpp dal di yeewu nañ bàyyi di jéem a tegal sénégalais yi ay stratégie de communication yoo xam ne dafa xew yi depuis yàgg na sénégalais yi mënatuñoo nangu mënatuñoo accepter ay genre Idrissa Seck saa su ne ñuy génn yi jéem a lëndëmal sénégalais yi di leen gëm loo xam ne c'est des histoires anciennes nous sommes en politique te liy xew ci réew mi ñëpp gis nañ ko ñëpp teg nañ ci seen ay gët duñu fi toog nag Idrissa Seck ñu raconté ay histoire la concerné ce qui concerne les Sénégalais c'est la vie chère mal gouvernance bi am ci réew mi tëj ak tëjji guddul jeex ku ne piip ñu jàpp la tëj comme ni nga xam ne Dame Mbodj noonu la ko waxee ci mbirum Lido bi mu jël ngir daal di qualifier dëkk bi ni nga xam ne noonu la ñuy jàppee nit ñi te leen yóbbu ci kaso yi lii moom mooy dëgg nañu Idrissa Seck épargnel ci jeu bi nga xam ne moom lay jéem ci suñu am réew di Sénégal depuis bi gars yi nekkee di xeex ak le président Macky Sall di résister boobu ba tey mi ngi toog dans son petit coin xamuñ woon ci nekk doon def tey mu ñëw bëgg accaparé wu ci benn résistance boo xam ni gagné nañ ci lu bëree bëri bëgg ko moomale boppam jéem a éliminer Ousmane Sonko bu booba dañ naan kan tout simplement monsieur l'ancien opposant vous ne pouvez pas renaître dans l'opposition sénégalaise ndax lenn dafa am da dem bàyyi ginnaaw ay jeunes yu conscient xam fu ñuy teg seen tànk xam li ñu bëgg du da ngay ñëwaat amadouwe leen par des histoires yoo xam ne ñëpp xam nañu ko amul benn rentabilité par rapport aux jeunes lenn la gaayital bindu ci liste électorale yi préparé xeex nag ngir am gain de cause ci li nga xam ne mooy candidature bu président Ousmane Sonko ak képp kuy candidat déclaré au Sénégal te nguur gi di la jéem a indil ay ndigg sërëx résistance boobu moo tax àdduna wërngal képp ñëpp dégg la message du président Ousmane Sonko et de l' opposition Askan Wi kenn waxaalewu ko ndax résistance boobu moo tax ku ci nekk intéressé wu ci Sénégal bay xam li nga xam ni moo fii daal di xew ñëpp commencé di dénoncer état du Sénégal ni muy doxalee président Macky Sall dès à que mu renoncé ci troisième mandat troisième candidature lii moom mooy débat bi lii moo soxal sénégalais yi bu ñu noppee ci loolu ñu tourner vers l'essentiel ndax am na yu ñu ëppal njëriñ fuuf nekk fii ci réew mi di sonal sénégalais yi te boobu ba tey dégguñu Idrissa Seck dal di ciy wax kon ana lan la ay kàddoom tey jii di def comme effet ci ñun ceeb bi yokk na fi dëwlin waxaale wuñ ko courant ak ndox sénégalais yi di ko jooy waa Orange Sonatel dëkkee saa su nekk di yokk seeni ay forfait transporteurs yi di grève léegi paasu yëpp lañ daal di yokk jàngalekat yi xeex loolu yëpp bi muy xew ci réew mi kenn kenn déggul Idrissa Seck mu daal di ci addu kenn gisu ko mu teewal sénégalais yi kenn gisu ko mu défendre les intérêts de la nation tey jii à quelques mois des élections mu bëgg a génn retrouver waat lépp li nga xam ne pertoon na ko gannaaw ba mu waree sénégalais yi dem àndi ji ak le ma Macky Sall ñuy yaakaar tout simplement que ne da doon nelaw tiit daal di yeewu xam ne kat élection yi ñëw na ba noppi te moom ñëpp xam nañ ne dafa am soif de pouvoir loolu moo tax képp ku nekk ci nguur rek boo ko woowee mu daw gaaw ñëw yaakaar ne da ngay puus York alors qu'il ne sait pas que ce fauteuil-là n'appartient à personne sinon au peuple qui en délègue les responsabilités non à un maître mais à un serviteur soyons les serviteurs des Sénégalais arrêtons de nourrir le népotisme fa am loo xam ni faw Idrissa Seck daal di koy xam mooy que le pouvoir appartient au peuple et le peuple sénégalais est souverain mooy décider kan mooy dugg biir palais atum 2024 na xam ni personne personne ne choisir à la place de la population sénégalaise. AGT News.